GMT TV di chaîne YouTube bu Grande Mosquée bu Touba ñoo leen indil ay émission yu yees ci programme bu yees buñ taxawal ci ndorteel at mu yees mi di 2021 di fukki émission ak benn yu ñu amal ci weer wu ne ñu seddale ko ci ñetti pàcc bi ci njëkk di juróomi émission yu ñu amal di leen fàttaleek xamal lépp lu jëm ci seenug diine ak i émission yu leen di jàngal jëm ci téere yi di fiq tasawuf tawhid ba ci siira ay émission yu jëm ci alxuraanul karim ba ci dunduk yonent bi salallaahu alayhi wa sallam am na ci it yeneen yoo xam ne dañ koo jagleel jàngat xutba ak bayaan yi am ci jumaay Tuubaa ji àjjuma ju ne ba ci noonee émission fatwa jëm ci gàgganti leen ci seenug diine ñaareelu pàcc bi jëm ci ñetti émission yoo xam ne dañ koy amal ci wàllum culture ak société jëmee ci dundinu doomu aadama bi ak nekkinam ci askan wi ak ik fàttali jëmee ci jikko yu sell war a làmboo di makaarimal axlaax ñu ciy dalal ay boromi xam-xam yoo xam ne seeni xam-xam dafa màcc ci fànn yile léegi pàcc bi di yeneen ñetti émission yu ñu indi mu jëm ci yoonu murit ni muy doxee taarixam dundinu Cheikh Ahmadou Bamba ak njàngaleem ak ni nga xam ne noonu la yoonu murit di doxee li lépp di fukki émission ak benn yu ñu amal weer wu ne di programme bu yees bu leen seen chaîne YouTube GMT TV bu Grande Mosquée bu Touba indil programme bu am solo bi ñu ko diffuser ci TNT bi daa ngeen ko fekk ci sunu site internet di www.mosquetouba.org wala mosquetouba.com bu leen fàtte abonné ci sunu chaîne YouTube di GMT TV ngir dara bañ leen di rëcc ci émission yu am solo yi mën ngeen ko amit ci mbooleem sunu plateforme yi nekk ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook la Instagram Twitter ba ci YouTube émission yu am solo yi nag GMT TV di ci ànd ak waa daayira mu xadamatul xidma ci saytu gi ak lépp lu ci aajowu ak programme bu yees bu GMT TV di chaîne YouTube bu Grande Mosquée bu tubaab yi dara du leen ump ci seen diine. وعمل